Euh, da ngay waxtu wala. Hmm, Adja ah, ah, kon yéen kaay pas <laughs> parle seul parfois il arrive de parler seul Chérif yéen kaay ak la ñu xëyee ñu doore ko ak l'observateur l'observateur yéemu rek ak chiffre bi nga xamante ni Fatick xëy naa moom muy accident bi nga xamante ni ci début de l'année la amoon fii ci Sénégal ca 6 kilos au début 40 personnes waa donc daanaka fanweeri nit yokkuwaat nañ ci muy 70 di juróom-ñaar fukki doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan finalement ci bobé accident ah, lu gis nga ko rek ñii di secours yi si traumatisme bi am souffrance su rescapé yi ak tamit groupe WhatsApp muy loo xamante ni kon yéenekaay bi l'Observateur ñëwaat na ñëwaat également ci li nga xamante ni sûreté urbaine def na ko mafia faux documents inventés ak tamit ay cachets yoo xamante ni cinquante-huit di juróom fukk ak juróom-ñett yu centre d'état civil Sénégal kon gars yi dañ a sàcc faussaires yi ñoom moom la ñuy utiliser nag di ko tamponner di ci gis nga ko 96 copies littérales ay casier judiciaire ak tamit certificat de mariage yoo xamante ni kon yéen a kaay bi daal dina ci ñëwaat ñëwaat également ci politique ak candidat benn bokk yaakaar bi nga xamante éliminé au premier tour Amadou Ba kon le scénario du pire li koy waral nag bokk na ci rek ñu bëri doonoo jàpp ni continuité troisième mandat bu président Macky Sall ak vote sanction yi nga xamante ni kon mën naa dem ci moom yéen kaay bi ñëw na ci euh, Coupe d'Afrique bi euh, comme Aliou Cissé day publier sam ci kanam gis nga ko rek 9 milliards yoo xamante ni euh, maanaam mooy budget de campagne bi ngir indi bi fi Sénégal bi su ngoone également loo xamante ni wax naa na ko ak yéen kaay bi de

antenne immédiate yéenekaay bi nag gis nga ko ñëw na ci kuréel gi nga xam rek mom lañu dénk wàllu sécurité alimentaire fi ci Sénégal et puis bénédiction des couples homosexuels église bu Sénégal mom lank na né li pape bi wax mom andun ci gis ngeen sax demb euh, conférence épiscopale liñ ci wax ay wa lu sore ci la daat ñëwaat mi ngi ni kon les évêques du Sénégal euh, donc le redis ñet ñom dal andun ci li nga xamanteni moy mariage goor jigen bi nga xamanteni kon pape bi wax na ko yéenekaay bi ñëw na également ci walu énergie capacité de raffinage SAR muy société africaine de raffinage bëgg na monter en puissance puissance ak 1,2 1,5 million de tonnes yo xamanteni kon ñu ngi koy rek raffiner fofu objectif moy entre 3,5 ak 5,5 millions muy lo xamanteni Antoine Diom mi dénk wàllu énergie ak pétrole dem mu nga woon ca Saar. Eh aywa libération. ñew ci kër yërmande ak affaire de business finalement soxna si nga xamanteni ni moo di Ndella Madior Diouf daal dafa bëggoon a jëfandikoo yaayu ya yooyu pour am xaalis ci li nga xamanteni mom moom yoyé bébé ndax sen détresse le don exploité deux des six bébé yo xamanteni kon ñak nañ sen bakan ko waral nag mooy gis nga ko rek euh, ay euh, jafe-jafe ci wàllu biberon ba danañ ko don joxe ak utilisation meew ma ndax meew mon don jëfandikoo danaka màgget yi ñoom ñoo ko doon ba tax na gone mujjee ñàkk seen bakkan et puis tam ndeel assistante ba ak ki nga xamante moy mooy vigile ba ñom yóbbu nañ leen kaso ak animateur ba am na ñoo xam ne mooy nunu yu moom doon nekk su contrôle judiciaire et puis Bilal Diatta mi nga xamanteni mom moy maire bu keur Massar Sud mom nak dafa am ñuko coup d'état entre guillemets parce que jël nañ place am lool nak mom weddi na ko ba nga xamanteni ci kasso bam nek nena nee rek euh, nañ ko dellowaat ndomba tànkam et église bi lànk gin lànk ci wàllu mariage homosexuel la tribune premier grand test vers le palais jëm kon ci tirage au sort bi war a am ci kanam fële ci conseil constitutionnel ngir ordre de passage contrôle parrainage yi ministre bi nga xamante kon moom mooy Sidiki Kaba ci wàllu vérification parrainage yi am na loo xam ne wax na ko ci ñu dem ci parlementaire volte passe day gis nga ko de cadeau la ko tuddee Euh, Diallo tekki di Mamadou Lamine Diallo ndax Mamadou Lamine Diallo nee na euh, Bougane daf koo plagier ndax Bougane livre programme mi ngi ko tuddee tekki soxna Fadi. waaw ñu dem ci Les Échos. daal di ñëwaat rek ci mbiram Ndella Madior Diouf ak tamit euh, ñi nga xamante ni kon mooy ñenn ñi dem ca kaso ba nu nuyu finalement ci contrôle judiciaire 48 bébé yi finalement ñi nga ca hôpital Gaspard Camara bi ñu yegg nag daanaka lott nañ ko woon ak tamit dénutri ndax lekk ak yu ga et puis tamit 68 kilogrammes cocaïne encore ñu saisir ko par la marine connexion entre cartel espagnol et nga kon albanais mu mel ni Nous mi de jéggi na doyee soxna Faté. wax euh, le jour. dimanche fils du Sénégal muy le dernier discours à la nation du président Macky Sall en tant que chef de l'État du Sénégal comme Senghor dafa mel ni Senghor defoon bi 31 décembre 1980 discours sans pression bilan euh, ak bilan candidat yu ni mel amu ci kon ak Abdou alors li nga xamante ni kon jotuñoo tàggoog Sénégal yi ndax ñoom dañoo nekkoon candidat ci élection ba ci topp ñu mujj leen a euh, gagné yenn kaay bi ñëw na également ci ay arrestation yoo xam ne dafa la ca Casamance. Mm. ginnaaw kon euh, ay ndel yu kalaate ba ay soldats ñàkk seen bakkan. ay walaas. ci mbiram Ageroute la daal ñëwaat ak li nga xamante ni kon mooy directeur bu bees bi mi ngi nii kon euh, moom mooy Mamadou euh, Mamoun euh, Mamadou Ndaw moom moo remplacé sax Ibrahima Diallo mi nga xamante daanaka yag na fa trop yene kaay bi ñëw na kon ci choix bi nga xamanteni mom lañ def rek ki wala defal defar tali yeeg yu ni mel ci Sénégal. ay Vox Pop. Vox Pop daal di ñëwaat ci promesse bi nga xamante Sidiki Kaba wax na ak tamit administration territoriale ci organisation élection présidentielle ci jamono jojo avocat Ousmane Sonko kon ñi ngi interpeller responsabilité juroom ñaari sage yu conseil constitutionnel Ndella Madior Abdoulaye Diouf dem na les évêques du Sénégal kon réitèrent leur opposition à l'homosexualité wute kon Pape François nga xamante loolu la bëgg amal. aywa sur ça. daa di ñëwaat ci benn borom xam-xam muy docteur boo xamante enseignant chercheur la muy Pape Moussa Saliou Guèye. Mingi valide kon composition dossier Ousmane Sonko argumentaire bim mu joxe nee quittance bi nga xamante kon caisse des dépôts et de consignation joxe nako ko nek kon euh, preuve de versement de la caution bu ñu sukkandikoo ci borom xam-xam bi. aywa le témoin def bilan d'étape bu euh, deux mois yo xamante mom soxna ci euh, di Anta Babacar Ngom def nako ci walu tournée Sénégal des profondeurs yéen kaay bi kon ñew na ci def taxaw seetlu. aywa Sud Quotidien Sud Quotidien mom mingi ngi ci rétro yi ba léegi comme nim ko commencer demb affaire politico judiciaire manifestation meurtrière juin. Euh, ak tamit euh, liberté civile politique en péril jeu électoral tronqué mel ni kon atum 2023 de tous les excès loolu lañ daan nemmeeku ak euh, Jean-Charles Biagui mon enseignant chercheur le ci wàllu science politique ak yu ni mel ci université Anta Diop bu mi ay ci bi. si ses comptes sur ses cadres mel ni kon ci kanam moom Aliou Cissé dina ñëwaat ci liste bi nga xamante ni 27 joueurs yu war a dem défendre seen titre fële ca Yamoussoukro lañ koy tàmbale seen groupe ba nga xamante ci la nekkoon dans quelques heures de xam Kalidou Koulibaly Koulibaly ak gaayam yi ah, ci lan lañ toll et puis tamit euh, mu ñoom nag ña nga ci Arabie Saoudite di fa jongante bala moo ñëw moom Kalidou xëy na dina amaat ndam ngir mën a euh, conforter seen place de leader ci Saudi Arabia Pro stade Aliou Cissé craint-il le syndrome Sadio Mané jëm rek ci li nga xamante ni mooy liste bi mu yaatal élargie des euh, réservistes ngir ak kon xëy na ay blessé rek yu mel lu ci mën a am daal moo ngi noonu Cameroun nga ni football nag dafa mel ni choupo waaw moom dafa mel ni gars yi dañ koo sanctionné et puis tamit Gambie moom mu ngay défier Maroc à Rabat le juin mel ni kon ñoom it adversaire Sénégal le 7 janvier ñoom adversaire Sénégal yi kon ñu ngi waajal bu baax a baax Krépin Diatta ak Sabaly à la CAN 4 ans après kon gis nga rek seen jafe-jafe yeen amoon et puis ki nga xamante ni mooy ci Arabie Saoudite tamit Kalidou Koulibaly gaayam yi ñu ngay waaj bu baax a baax waaw sunu moom mi nga xamante ni moo war a boole ak Boy Niang le 1er janvier Inch'Allah, à ci 2024 bi image yaa ngi ni démb la woon Parcelles merci beaucoup jërëjëf euh, Chérif mu nekkoon euh, et yi ak la ñu xëyee ñu des ci actu commenté bi ak euh, def